الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على درة البيضاء والياقوتة الحمراء وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم وبرزق المختوم مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سره وخليفته إمام الصديقين والعارفين والأقطاب المتمكنين شيخ الإسلام مولانا الشيخ إبراهيم بقي غناو buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jokk ci suñu sëriñ di Mawlana Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu di jokk ci xalifaam mi nga xam ne mooy ilimaanu siddiqine ak aarifine ak aktaabi di cheikhul islam Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi nuyu mbooleem ñu fi teew ñëpp di leen di ndokkeel ci guddi gu tedd gi di guddi goo xam ne guddeeg leer la guddeeg nangu ñaan la guddi la goo xam ne lu fi nit ñaan rek nangu ko ndax mooy guddi bi gën a ci guddi yi nga ci maqaamu Maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci jiital ci nuyoo bi suma rak suma xarit Cheikh Abdul Baqi ak suñu mag suñu yaay Seyda Faat Dem ak mboolem ay rakkam yépp maa ngi nuyu ñëpp nuyu muqaddam yépp di ndokkeel ñëpp ñu sant yàlla ci guddi gii nga xam gannaaw bi nga xamee ne Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jugee na Makka ziyaara yonent bi sallallahu alayhi e, njëkk bi muy dem Makka fekk nekkoon na ci xelam ne gisee maamam mu yonent bi sallallahu wa sallam bi nga xamee ne nag ñëw na ba Makka ci la benn xut bu mag muy Muhammad Abdullahi Hindi xaadinul Makka daal di kasfu an na Cheikh dugg na Makka mu daal koy bind leetar mu ne ko waroon naa dee daaw waaye maa ngi doon ñaan yàlla mu xaar bañ gisee ma jox la mbir mi na nga xam ne yow yaay ki nga xam ne yaa doon suma sirru sumay asraar yëpp yow yaay ki ko yor mu ne ko nag maa lay dénk suma doom nañ ko jàppale mu jël leetar bi jox ko benn taalibeem ne ko soo demee ci xaramul makka soo demee da fekk foofu benn góor bu jógee maxarib bi ñu naan ko ahmad tijaani nga jox ko leetar bi fekk taalibe bi mu génn jàng na leetar bi bi mu ñëwee xam na li ci nekk mu ñëw jox ko Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ne ko soo demee nga ne ko damaa bëgg gis ak moom taalibe bi ñëwee wax ko mu ne ko déedéet mënatumaa gisee ak moom ndax suñu gisee rek dañu dee ñaar ñëpp ndax mënatumaa gisee ak doomi aadama waaye wax ko ne ko mu dem ca Medina Munawar su demee gis foofu Abdou Karim Simal dana ko doy eh, gannaaw loolu Cheikhu Tidiane daal di dem taalibe bi nag di attaqué sëriñ bi ne ko maa ngi nekk ak yow ñaar fukki at ak nangam di la liggéeyal guddi ak bëccëg subaa ngoon ki gisoo mosoo koo gis mosulaa liggéeyal nga ne mooy kuroon sa sirru mooy ki nga xam ne moo donn say asraar moo doon say mbóot mu ne ko uskut ay xal walat li anna al amru laysa bi yadi law kaana bi yadi la ataytuhu waladi mu ne ko yow suma doom noppil te nga ànd ak teggin mbir mi nekku ci su loxo suma loxo su fekkoon ne suma loxo la nekk rek ni ko dama koy jox suma doom e, foofu nag la Cheikhu Tidiane radiallahu anhu daal di dem Medina Munawar ziyaara maamam yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di jugee foofu nag dem gis Abdou Karim Simal Abdou Karim Simal ne ko da ñëw ma dugal a xalwa ñetti fan ma fóot la ma jox la li nga bëgg fekk Cheikh Tidiane du lool la bëgg dafa bañ ndax Cheikh Tidiane li bëgg mooy gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa ma man mu jox ko li mu bëgg waaye nag Abdou Karim Simal moo ko jox yu bari ci siru tariqa bi lu ci mel ni asmaul idrisiya lu ko lu ñu mel ni hizbul moxni mu may ni yeneen sirru yoo xam ne ci mboot tariqa bi si Abdou Karim Simal moo ko jox Cheikhu Tidiane daal di jóge foofu nag ñëw ba abi sam woon foofu nag la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu yaxasatan ci diggante da maam ci gàddaay junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ko feeñi mu ne ko anta wala di xaqa anta walidi xaqa anta walidi xaqa yow yaay suma doom ci dëgg ba mu ñett yoon mu ne ko utrug anka jami al mashayix wa jami al azkaari wa jami al asmaayi fa ana cheikhuka wa murabbika wa kafiluka mu ne ko mboolem sëriñ si nga jàppoon yëpp bàyyil mboolem asraar eh, yoon yi nga jàppoon yëpp bàyyil mboolem tuur yu doon wirdo yëpp bàyyil man maay si sëriñ man maay ki gel omat man maay ki lay yar man maay ki téye ci sa mu daal di ko jox téeméer astafurlah ak téeméer salaatul fatih boobu gàddaay mu ngi ci junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn dégg nga maam Cheikhu Tidiane nekk na ñeenti at mu ngi wirdo listixfaar ak salaatul fatiha ba gàddaay am junne ak ñaar téeméer ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa koy dellu téeméer laa ilaha illallah muy ñetti téeméer lan moo nekkoon illatu biñ gisee yoon bu njëkk ba joxu ko ñett yëpp boobu fekk na Abdou Karim Simaan mu ngi dund moo nekkoon xutbu zamaan ci jamono yooyu ndax xutbu duñ ko folli dafay dee rek keneen bi nga xamee ne nag gàddaay dem na ci junne ak ñaar téeméer ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dolli téeméer laa mu ñetti téeméer da nga maam eh, bés boobu ci la Abdou Karim Simaan dee ci la Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu yéeg ci maqaama qutbaaniyatul uzma saamilatun bil fardaniyati wa siddiqiyati kubra uma fatil kunuz guddi googu nag ci la cheikhu tijaanit yéeg ci maqaamam buñ naan xatmiya maqaamuhul maxtuumu bil xaay bi mu yégee ci maqaamu boobu nag mu daal di xool ndeyjooram ak càmmaayu càmmaayu càmmooyam mu xool ci kanam ci gannaaw mu teen ci kaw ci suuf gisul dara lu dul leer ci biir leer foofu rek yonent bi sallallahu alayhi wa taxaw ci kanamam mu ne ko yaa rasulallah al awliya ayuhumu ala maqaaman fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cheikh abdul qadiri jeylaani wabnu arabi al xaatimi ne ko yonent yow yonent bi ana kan moo gën a kawe maqaama ci yón ci ci wali bi cheikh abdul qadiri jeylaani ak ibnu arabi alxaatimi mu ne ko ya rasulallah hal wasalahuna ahadun min al awliyaayi fa qaala lahu naam wasalahuna cheikh abdulqadiri jeylani وابن عربي الحاتمي وأما الإمام الجنيد والحسن البصري والإمام البصيري فقد وصلوا إلى عشر المقام فغلبهم متجلي فلم يمدوا فرجهم من كنت في متاو أمنا بن ولي بمسا تاو من كنت Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ak Ibnu Arabi Xaatimi ñëw nen ba taxaw fi amma nag limaamul Junaydi ak alxasan al basari wa limaamul busari ñëw neen ba ci fukkel maqaama tàngoor te jëlli not leen attunu ñu daal di dellu amma nag Cheikhu Tijaani maanaam fi mu taxaw mooy maqama dégg nga maam barzaqun bayna nubuwati wal wilaaya maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki tëj dégg nga buntu nubuwa daa di cheikhu tidiane radiallahu anhu nag mu nekk barasax diggante nubuwa ak wilaya foofu la alquran di wax ne marajal baharayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yabghiyaani ñaari duus yi ñu ngi dóorante te fekk duñ laalante ndax barsax bi nekk seen diggante foofu nag la cheikhu tidiane daa di taxaw dégg nga muy barsaxun bayna nubuwate wal wilaya nekk na dégg maam ci maqaama boobu dégg nga maam fukki at ak ñeent mu dem dégg maam ba safar fukki gudd guddi fukki fan ak juróom-ñett ci fas ci safar mooy guddi tey bii ci la yéeg ci maqaamam bi gën a kawe mooy katmiya bésu alt guddi altine gannaaw minuit ak genn wàll ci la génn moo ko xadiimam Seydi aliw Harazim ñu daal di jàpp ñu taxaw ci bunt këram am na benn place mu ngi foofu ñu ko wax si xaaku rawaahi ndax Cheikhu Tidiane mas na toog ci biir këram xaatifu rabbaani daal di ko wax na ko yaa ahmad tijaani oxruj bi suurati kullu man raaka daxalal janna mu ne ko yow cheikhu tijaani génnal ak suma jëmu bi képp ku la gis ak duggul aljanna cheikhu tijaani génn ci buntu këram nit ñi di koy romb du koy xool foofu nag la taxaw mook ak xadiimam Seydi Aliou Harazim ñu daal di jàpp ñu jéegu ñetti jéegu ñeegu arafa biñ yegg see arafa ñu fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog mu ngi ko war seydina aboubacar siddiq seydina omar ibnu xataabin seydina ousmaan ibnu affan seydina ali ibnu abi talib seydina ibrahim seydina moussa seydina isa téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti ci yonent téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñëpp ñu nga war yonent bi yonent bi daal di da maam jug ñoom ñëpp ñu jug mu ne ko yaa ahmad tafaddal mu ne ko yow cheikh Tidiane yegsil cheikh daal di yegsi yonent bi jël loxom bi teg ko ci loxo cheikhu Tidiane ñu bàyyaa mu nekk xalifatullahi fi ardihi wa xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi diini mooy guddi tey bi ci la yéeg ci maqaamam bi gën a kawe moom mooy katmiya maqaamuhul maktumu bil kaafi mooy guddi tey bi bi mu yéegee nag ci maqaama boobu nag ankadi nag dënn bi fees na dell du si géeju yàlla bi daal fees dell nag ci dënn bi boobu nag leer boobu xam-xam su fekkee na da maam eh, dugg na ci dënnu waliyu budd mu wax te lim bëgg a wax dafa laaj su fekkee ne wax na ko ñu koy laajaat ci biir wax ci xam na ne nag ci taalibe amul kenn koo xam ne ñeme na ko su waxee mu koy laajaat lu du Seydi Mouhamadou ne ay na Seydi Mouhamadul Xaali ñu daal di koy woo mu daal di ñëw mu ne ko Seydi Mouhamadul Xaali ana mu ko yow Seydou mamadou Ghali mané suma ñaari dëggu yi man ko tek ci baati kep kuy waliw Seydou mamadou Ghali nako ya cheikh anta hadirun am ghaibun yow yaangi tew wala da nga fàddu Cheikhu Tidiane nako fa ana hadirun fa lillahi alhamdu Tidiane nako ko ngi teew ngi yàlla mu ko fa kayfa taqulu dalika wa cheikh Abdul Qadir Jeylaani fil Baghdad qal qadami haati ala raqabatin kulli waliin mu ne ko yow naka ngay waxee loolu te Cheikh Abdul Qadir Jeylaan ca Bagdad dafa waxoon ne suma benn dëggu bi maa ngi ko teg ci baati képp kuy waliw Cheikhu Tidiane na ko sadaqa Seydi Abdul Qadir Jeylaani li annahu yuridu awliyaa zamanihi mu ne ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaan wax na dëgg ndax dafa namm waliw zamaanam wa amma ana qultu laka qadamaaya haataani ala raqabatin kullu waliyin min ladun aadama ila nafaq fi suur mu ne ko man Cheikh Tidiane dama la wax ne su ma ñaara dëggu yi maa ngi ko teg ci baati képp kuy waliyu du dalee nag ci aadama ba bësam pécc képp kuy waliyu rek su ma ñaara dëgg yi mu ci kaw sa sa kaw dox cheikh seydi mouhamadul gaari ne ko yaa cheikh alam yaqdir allahu an yaatee waliyan baadaka yaqulu fawqa ma qult mu ne ko yow cheikh Tidiane ndax yàlla attanut sa gannaaw mu indi beneen waliyu mu wax li gën a kawe li nga wax cheikhu Tijaan ne ko allahu qadirun ala zalika walakinahu la yafalu mu ne ko yàlla man na ko waaye du ko def boobu nag mooy maqaamam bi gën a kawe moom mooy katmiya ci guddi tey bii ci la cheikhu Tijaan yéeg ci maqaama boobu moo tax mu ne inna lana martabatan inda allahi taala tanaahat fi l ulwi ila haddin yahrimu zikruhu وليس هي التي أفشيتها لكم لو صرحت بها لكم لأجمع على الحق والإرفان على قتلي أو على كفري فضلا عمن أعضاهم وليس هي التي ذكرتها لكم بل هي من ورائها ومن خاصية تلك المرتبة أن من لم يتحفظ على تغيير قلبنا في أصحابنا بعدم حفظ حرمة أصحابنا ضردوا الله عن قربه وصلبه ما منعوا نعوذ بالله من الطرد بعد القرب ومن الصلب بعد الغطاء من شيخ تجاني من أمن المرتبة تي الله مرتبة بوقمنا كوينا كوي بوقمنا لا من دفاي تنكو بور وخكو خالي ما دال ديس بور بندو من لما لين واخ لي ييب مون سي غناو لول من سو فيكون انا ليرولو نا لين لي نيك سي مقام بوبو ني كونون غور يالله يو ماغي waliyu yàlla yu magin daneen taxaw atte ci man ak keefeer wala ak rey waaye nag li ma na wax ci gannaaw loolu la nekk mu ne bokk na nag jagleel bi ma yàlla jagleel ci maqaamu boobu képp ku muy di tàngal suma xol bañ a xormaal sumay taalibe Cheikh Tidiane nee na képp ku mooy loolu yàlla dana la soril gannaaw bi nga ko jegee yàlla dana nangu lépp lu mu la mayoon ñu ngi muslu yàlla soril gannaaw jagee ñu ngi muslu yàlla dégg nga maam nangu gannaaw maye cheikhu tidiane radiallahu anhu e mu dellu wax ne bi nga xamee ne nag yéeg na ci maqaamu boobu mu ngi xuus ci ci ci géej yooyu yi nga xam ne pay yàlla kenn la mu daal di wax ne kulluma barazat wa faadat min zaati l aliyati talaqataha xaqiqatu l muhammadiya wa kulluma barazat wa faadat min xaqiqati l muhammadiya تلقتها زوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ما برزت وفاضت من زوات الأنبياء تلقتها ذاتي ومني يتفرق إلى جميع الوجود من لب lu jógee ci pay yàlla bi mu ngi sotti ci pay xaqiqatul muhammadiya lépp lu jógee ci pay xaqiqatul muhammadiya mu ngi sotti ci pay yonent yi lu jógee ci pay yonent mu ngi sotti suma bay suma pay man Cheikh Tidiane nag man maay séddale mboolem mbindeef mi yëpp mu dellu wax ne moom Cheikhu Tijaan radiyallahu anhu mu ne ruuhi wa ruuhu sallallahu alayhi wa sallam kahaaseni fa asaara sababatahu wusta wa ruuhu alayhi salaatu wa salaam tamuddul anbiyaai wal mursaliin wa ruuhi tamuddul an awliyaai wal aarifiina wal aqtaab mu ne ruuxam suma ruuxu ak ruuxu yonent bi wa sallam nii la meloon mu ne ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy tëbb yonent ak yonent yu man Cheikhu Tidiane ak suma ruuxu dégg nga maam mooy tëbb mboolem wali yi ak aarifiina ak aktaabi Cheikhu Tidiane radiallahu anhu mu dellu wax ne laysa ahadun min awliyaay man yudxila ashaabahu aljannata bila xisaabin wala iqaabin illa ana wahdi mu ne amul benn waliyu boo xam ne dana dugal sa taalibe aljanna te du ànd ak enquête du ànd ak lu du man cheikhu tidiane radiallahu anhu moo tax am na hadis bu ñëw da nga maam ci téere bi naan anwaarul muhammadiya sharhan alal mawaahibi la dunyati taalifi saydi muhammad ahmadu qastalaani foofu yusuf nabaani da nga maam moo solow hadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne kuntu nabiyan aarifan bi nubuwati wa risalati وآدم بين الماء والطين لا آدم ولا الماء ولا الطين ولا العرش ولا الكرسي ولا السماوات السبع ولا الأرض السبع ولا الجنة ولا النار ولا ولا ولا من نكون نا يوننت te yonent bi yónni la boobu aadama mu nekk diggante ndox ak ban boobu sax aadama amut ndox amut ban amut aljanna juróom-ñaari amut sawara amut dara amut dara amut foofu la lisana ahmadiya muy cheikhu tidiane radiallahu anhu mu daadi ne kuntu waliyan arifan bi wilayati wa adamu bayna almaai wa tini la adama wala almaa wala altina wala alarsha wala alkursiya wala alsamawati sabi wala ardina sabi wala aljannata wala annaara wala wala wala mu ne nekkoon naa waliyu te xam naa ne waliyu la boobu aadama muy nekk diggante ndox ak ban boobu sax aadama amut ndox amut ban amut aljanna juróom-ñaari amut sawara amut dara amut dara amut woowu nag Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu mu dellu wax ne ci ngëneeli ku jàpp yoon wi mu ne man axasa tariqati tijaniyata yadxulul jannata huwa walidayi wa awlaaduhu wa azwajuhu wa walidu azwajihi bila hisabin wala iqabin wa yujawiruna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi ala mu ne képp ku jàpp yoon tijaan danga nga dugg aljanna yow ak say waajur ak say doom ak say jabar ak say goro te aljanna bi gën a kawe mooy dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa te du ànd ak du ànd ak mbugal mu ne law italaa akaabir awliyaay maa aata allahu li ashaabina fi ljannati wala bakaw wala qaalu yaa rabbana maa aataytana cheyan mu ne su fekkoon waliyu gis ne ni yàlla may bësam penc walla ci aljanna su may taalibe mu ne ni konoon ñoom xutb yooyu ak wali yooyu danay jooy danay wax ne yow suñ borom maye ñu dara lépp jox nga ko Cheikhu Tidiane lan moo tax ñuy jooy ndax danga gis bii waliyu wala bii xutbu dafa nekkoon di jaamu yàlla bàyyi këram génn këram nekk ci àll bi du lekk di jaamu yàlla guddi gi dafay fanaani julli ba bësët bëccëg bi dafay dafay yendoo or mu nekk ci loolu ba yàlla moom ko bësam penc mu taxaw su taxawee ñu koy laaj nga gis bii tijaani mi nga xam ne dafa nekkoon waa këram di lekk amaana ñu ci xaw a sàggan sax dañuy nelaw ba bësët fekk sax julliwuñ wuñ gexe amaana sax ñu ñu nelaw ba naaj bi génn ñu doog julli suba ñu ngi nekk seen waa kër ñu ngi nekk seen soxna ñu nekk seen doom di nekk seen liggéey ba sam penc mu romb la wàkku euh, yenu papam yenu yaayam yenu ay doomam yenu ay gorom dégg mam rombul sidaat kenn du ko enquête kenn du ko laaj mu ñëw ba ci rong al arsi mu toog foofu xaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ubbi aljanna juróom ñaari dugg dégg nga ak ay sahabaam Cheikh Tidiane ñëw ak ay sahabaam boobu Tidiane daal di jóg yenu waa këram yëpp dugg aljanna aljanna bi gën a kawee mooy illiyina mooy dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga maam ñooñu suñ gisee loolu danay jooy mu ngi mel ne rek Cheikh Hassan daf daa wax ne mu ne soo gisee golo ci kaw étage da ngay xam ne dëkkandooru ko fi indi waaye foofu du dëkkuwaayam radiyallahu anhu mu wax ne ne inna li tijaaniyina alaamatan yu'rafuna biha annahum min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maktubun bayna aynaani kulli waahidin minhum muhammadu rasulillah wa mimma yali qalbihi ila zahrihi muhammadu ibnu abdillah wa ala raasihi taajun min nuurin maktubun fiha at-tariqati tijaaniyatu man shaaha alhaqiqatu almuhammadiyya mu ne tijaani am na mandarga bi ñu leen di xamee ba sam penc màndarga boobu dégg maam moom lañ xamee ñii ci saabu yonent bi sallallahu alayhi wa lañ bokk mu ne li dalee dégg maam ci diggante ñaari bët yi ñu ngi bindi foofu la maam laa ilaaha illallah lu dalee ci xol bi jëm ci ci ci ci gannaaw ñu ngi bindi foofu muhammad mu ne mu ngi yanu benn tàngaade tàngaade bi nag urus la dégg leer la ñu ngi ci bind ne tariqati tijaani fondation tariqa tijaani dégg nga mu am ci xaqiqatul muhammadiya mu ne mandarga bii lañu xamee ne bii tijaani kii ci sahabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk mu dellu wax ne ci salaatul fatihi li mu ne man qaraa salaatul fatihi li maa uliqa maratan waahidatan yamuutu alal imaani qataan mu ne ku jàng salaatul fatihi benn yoon rek danga nga dee ci liimaan mu dellu wax ne man qaraa salaatal faati li maa uliqa maratan waahidatan xaramallahu jasadahu ala naari mu ne soo jàngee salaatu faatee benn yoon rek yar araamal na sa yaram mu dellu wax ne soo jàngee salaatu faatee benn yoon nga noppi salaatu faatee moom du noppi day jàng ba bësam penc te tiyaab bi yëpp yow yaa ki ko moom mu dellu wax ne soo jàngee salaatul faatiya benn yoon xaraf bu ne yàlla def ci bind malayka maanaam yow léegi soo jàngee salaatul fatiha benn yoon am nga téeméeri malaayka ak juróom-ñett ndax xurufu salaatul fatiha téeméer la ak juróom te malaaka bu nekk tamit dafay jàng salaatul fatiha ba bësam penc te tiyaabi bi yëpp yow yaay ki ko moom te malaaka bi gën a tuuti am na fukki junne làmmin te làmmin bu nekk day jàng salaatu faate te làmmin bu nekk ci jàng salaatu faate tamit xaraf bu nekk yàlla def ci bind malaayka noonu ba bësam penc fekk yooyu salaatul faate yëpp tiyaabi bi yëpp yow yaa ki ko moom yow mi nga xam ne benn yoon rek nga jàngul ci sa dund yow yaa ko moom séemaa nag tijaane bi nga xam ne lum néew néew ci bés bi dana jàng ñaar téeméer ak juróom fukk kon nag ñoo am sëriñ boo xam ne li mu indil yëpp ngeen la mooy borom guddi gi di cheikhu tijaane radiallahu anhu moo wax ne delloo wax ne wax Seydi Aliou Hara Seydi Aliou Harazim mu ne ko fala taltafit takzibul mukazzibin لو قدرت مئة ألف أقب وكل أقب مئة ألف بيت وكل بيت مئة ألف رجل وكل رجل يذكر الصلاة على النبي غير صلاة الفاتحة مئة ألف مرة لو اجتمعت كل ما بلغ حرف واحدة من صلاة الفاتحة لما أقوله منوكو يو سيدي علي ورازم بول دغلو فن كدي اك ويدي كدي موني سو فك فكي نون فك جوني دك دك بو نيك امنا فك نيك néeg am na téeméeri junne néeg néeg bu nekk am na téeméeri junne góor góor bu nekk dund na téeméeri junne at te góor bu nekk bés bu set ñu ngi jàng salaatu ala nabi fekk du salaatul faate téeméeri junne yoon mu ne soo dajale loolu yépp nga peese benn xarfu salaatul faatiya mu daal di leen daal kon nag salaatul faatiya ngeen la loo xam ne kenn xamu doyam lu dul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak Cheikh Tidiane moom ma ne kooku mooy suñu sëriñ mooy borom guddi gii di guddi bi gën a kawee dégg maam ci maqaamaam ci la ko jot mooy dégg nga maam maqaamoon maktuuma bil kaafi muy katmiya muy guddi tey bii kon nag ñu sant yàlla bi ñu yàlla dimbalee xéewale ñu ñu daal di màggal guddi tey bi ci màggal bu rafet bi ci màggal boo xam ne alhamdulillahi e ci ngoon daje nañu fi ak imam Cheikh Ahmad Tidiane Ali Cissé mu daal di xatmul quran bi comme ni mu ko daan defee guddi gi ñu dajaar fii tudd yàlla ñu daal di wax tuuti ci Cheikhu Tidiane kon nag guddi la koo xam ne guddi nangu ñaan la guddi loo xam ne lu fi nit naan mu nangu ndax guddi leer la guddi gu barke la guddi lépp la ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm mboolem koo xam ne rek taxaw na ci teew na fi ak yéene woon teew guddi gi màggal guddi ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ngi yem fii mu ngi guddi ñu bàyyi si kër kër ci ñu continuer السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته